ginnaaw ñetti fan yoo xam ne xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir amal na ko ci kaw Kaolack ci ak ngan sëriñ bi nag bàyyeekoo na fi ci ajuma ji dëppoo le 31 janvier 2020 ngir dem ci dëkk bu sell ba di Poroxaan ngir waajal màggaluk soxna jaara gi. Serigne Mountakha Mbacké Bachir bi muy agsi ci diwaanu Poroxaan fekk na mboolem taalibe yi ànd ko kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi. waaj ngir teertu gan gu tedd gi nga xamante ni moo ñëw ci dëkk bu sell bi mboolem kilifa yi nga xamante ni jiitu si yoon nañ fi sëriñ bi moo xam sëriñ Isaaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru ak sëriñ Fàllu moom sëriñ Basiiru ñoom ñëpp di rakk ci sëriñ bi ñu jiitu si ko fii ngir xaar ko ànd nañ kook mbooleem yeneen kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ak mbooleem taalibe yi ngir teertu sëriñ bi sëriñ bi nag bi muy ñëw ànd naag jëwrinam mu nekk ki nga xamante ni saa su ne day taxaw temm ci mboolem liggéey bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir mi ngi ci di ko ci jàppale bu baax a baax. mboolem taalibe yi naw ko tey di ko roy ci Pastef gi nga xam ne saa su ne mu koy wane ci liggéey bi muy Serigne Moussa Nawel moom ànd na ak mboolem ñi nga xam ne ñoom it ay jëwriñ lañ ak ndongoy tarbiya yi nga xam ne dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi. ñu ñëw fii ci diwaanu poroxaan ngir ànd ak xalif général des mourides sëriñ bi nag fi lay nekk ba keroog ñuy màggal màggalug soxna jaara gi yawma ya ramaanu muntajiyan fawsi bi ma si tuusi duniyaaka yàllaaw azara i murasi رحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله